Salam alaykum euh, téléspectateurs salam alaykum waa Géejawaay donc tey Géejawaay info ñëw fii def déplacement fii si stade Amadou Barry Nous fii ci au niveau ODK fi le patron du football mën nañ ko wax noonu ci muy euh, monsieur Abdoulaye ndjay mi nga xamanteni mom mo nek président odeka bu way donc meuna japp ne en 2017 le succédé ki nga xamanteni mom moy euh, Malik si ci bop football bi nga xamanteni mo nek fi ci way au niveau navetane donc euh, ñu ñu fi def déplacement ñu lat ci ay questions xool naka la ñuy organiser seen mouvement nawetaan bi ak naka la bilan aussi ci maanaam deux ans voire trois ans yi nga xamante ni toog na ko ci bopp footballu Géejawaay donc ñu ñëwoon fii seet si leen tey def benn reportage si ñoom donc ñu bàyyi tuuti si kanam tuuti ñëw interroger ko. waaw maa ngi di nuyu di rafetlu interview bi ngeen ñëw des fii au niveau de l'ODCAV man la Abdoulaye Ndiaye président ODCAV de Guédiawaye j'ai nouvellement élu il y a deux ans de cela laa nekk président ODCAV donc de booba legui ñu ngi déroulé suñu activité et aussi ñu ñu ngi gis li ngeen di def aussi ci biir way muy lo xamné lu ñuy rafetlu la di ko wa wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yalla mu jëm ci kanam dal wa bilan bi bu mako ko doon def dina jafé trop parce que bilan la lu bo xam man samay père ñoko wara def parce que ñom la andal di liggéey

waaw organisation nawetaan jafe na yomb na bu fekkee ni tegu na ci yoon parce que boo xoolee ODCAV dafa am ay structure yoo xam ne moom la règlement yi teg muy ASC affilié bu nekk à la base après zone ñëw ODCAV ñëw di ODCAV di organisme départemental ORCAV tegu ci kawam di organisme régional ONCAV ñëw di organisme national noonu la mouvement nawetaan est structuré maintenant nawetaan mooy une structure qui est démocratique. Parce que mono ne palier, pas aller palier, te palier, ci palier inférieur. Il ne peut pas aller rek dem ODK. Il ne peut pas aller à l'AIC, aller zone, aller zone, dem ODK, aller ODK, dem ODK. Donc, il est structuré. Donc, zone bi aussi, est structuré. Le règlement est que nous avons 7 AIC au minimum. Au-delà de 7 AIC, nous avons zone. Mais nous avons 15, 16, ça dépend. Donc, nous avons une structure qui est structurée. ODCAV booy seet structure de coordination là, comme ni nga ko waxee moom mooy coordonner activité zone yeeg ASC parce que démembrement on cave. donc ODCAV ne pas exister sans cave. donc booy seet amul sax récépissé zone amul récipité, kenn amul ci récépissé ci structure yooyu on cave, moo am récipité. mais boo gisee dañuy organiser ay phase zonale fa la nawetaan di démarrer.

dafa am noo xam noonu la ko règlement tënke bu ñu footballee ba pare recette totale bi nga xam ni yëpp moom lañ jaay nombre de ticket te loolu ticket yi ODCAV moo koy jox euh, zone yi te bu leen ko joxee pare bu ñu jaay pare nañ ñëwaat ODCAV ODCAV yónni ay financiers ñu contrôler ko bu dee nombre temps lañ jaay ODCAV am na ci cinq pour cent loo xam ne règlement moo ko may ak 2 pour cent yoo xam ne ticket la municipalité aussi am na ci pour cent donc muy 12 pour cent yoo xam ne day génne ci recette bi bu ci génnee premier reste nga xam ne moo des. nous gagnons maintenant dépenses organisationnelles. Si vous dépenses des dépenses organisationnelles, vous avez des feuille de recette zone wax avez des dafa am charges fixes et des charges non fixes charges fixes yi mooy yi nga xam police arbitre sapeur croix rouge vous avez des feuilles de recettes, vous avez bi yépp fa la mais malheureusement nous ne du pas gëstu ba xam loolu li nga xam ne moo jëm ci organisation membres mu zone transport nous avons un cinquième ci dépense organisationnelles. Beaucoup de ci organisationnelles, dépense organisationnelle maintenant reste bi ci des nan lañ koy zone bi un cinquième bi trois deux quatre cinquième football donc 25% pour cent 75% pour zone bi soixante pour cent football loolu mooy doon seen quote-part non pour rencontre yi

mu confirmer bu baaxul mu infirmer jël yeneen sanction maintenant sanction yi nga xam ne ci def muy sanction financière ou bien yeneen sanction yep yëpp ODCAV moo ko mais bu au niveau de la zone la zone bi amande ASC bi 300000 wala 500000 ASC bi am droit bu ko def appel au niveau de l'ODCAV ODCAV aussi de juger waat rek mais nekkuñu fi aussi pour sanctionner parce que booy xool ñu fi nekk rek pour éduquer mais nag avons ñu gis léegi wax dëgg yàlla dafa mucc ayib donc il faut que ñun aussi ñu jël suñu matuwaay par rapport à ça balaa yenn dérives yi di fi am Mhm. Euh, waaw année yi passé gisuñu woon euh, violence au niveau de Guédiawaye mais wax dëgg yàlla cette année bi ñu egsee ci phase éliminatoire yi gis nañ fi ay violence yoo xam ne wax dëgg yàlla rafetlu wuñ ko loolu lu koy indi mooy booy set dafa am ñoo xam ne vraiment duñu ay sportif parce que sport doit être a unir être fédéré. fédérer mais bu demee ba day indi ak yenn scène de violence wax dëgg yàlla waroon nañu xoolaat suñu bopp ñun nag matuwaay yi nga xam ne moom pour éviter cela dinañ def tout ba nga xam ne balaa nawetaan commencé dinañ woo ASC yëpp dafa leen benn session de formation sur la violence en collaboration avec la police et les structures décentralisées wax leen li nga xam ne muy indi violence li nga xam ne moom la ñuy def pour éviter ko loolu dinañ ko def ba nga xam des fois géejawaay violence du fi bari

Top football ko rek génn si mais ñu ngi xool ay stratégie yoo xam ne bu ñu ko defee dinañ reveniraat ci phase populaire yi nga xam ne moo daan am ci mouvement nawetaan daal mais daal ñun aussi boo gisee muy tiré en longueur c'est que infrastructure moo amul dans la région de Dakar booy seet région de Dakar ñaari stade rek la ñu fi fubal nawetaan Guédiawaye quatre zones ñoo fi football hébergé waat yeneen zone yoo xam ni ñu ngi fi ligue professionnelle aussi fu lay fubal ligue de Dakar aussi di football. donc loolu aussi day greffé ci quantum bi nga xam ne moom la ñu waroon mën a utiliser pour def suñu activité mais aussi parce que on est obligé par la solidarité aussi d'héberger certaines ASC mais nous ñu ngi prochaine est ce que duñu réduire le nombre d'ASC par rapport aux compétitions loolu aussi xalaat la boo xam ni mûrir par rapport pour l'année prochaine Inch'Allah. voilà donc bien qu'on ko réduire le nombre d'ASC, est ce que tamit tamit mis euh, bi nga donc mën a jàpp nga tijji woon bu ñu woon dina baax trop parce que dina mën a permettre ñu délocaliser certaines rencontres yi nga xam ne du rencontre yoo xam ne war na mën am yenn enjeu yi mais wax dëgg yàlla nag stade bi ni ñu ko defaree ah xaw naa ci am xel ñaar par rapport ñu koy fubal nawetaan parce que aussi public bi ñu yor ak supporters yi ñu yor defe naa ne stade du bari fubal fi nawetaan moo gën si ñoom

loolu lañ yaakaar loolu lañ bëgg daal football ko ci jour bi nga xam moom lañ inaugurer stade bi te le stade sera inauguré incessamment daal waaw d'ici deux à trois semaines dinañ inauguré stade bi te su boobaa aussi dinañ jouer final bi. donc jàpp nañ mm-hmm. mm-hmm. waaw yaakaaru mu am gàllankoor mais nag jàmm bi aussi proposé rek la am yàlla mooy dogal. Nous avons fait calendrier pour jouer les phares départementales on l'avait calé sur 13 jours francs pour jouer mais bon, c'est ci ay ci mais on est en train de rectifier mais la la fin du mois il y a une finale départementale. Abdoulaye Ndiaye donc mu nek ken ko xam ko aussi ku disponible hein parce que ñun ñoo dëkk ak moom xam nañ ko ci stade bi la nekk donc lépp lu ñu ku accessible aussi parce que question buñ bëgg a laaj rek vraiment jarul sox ñuy ñëw bu ko woy téléphone rek dañ naan nii ak nii ak mu nek quelqu'un ku disponible hein ah, ko xam te aussi quoi qu'on puisse dire depuis 2017 la fi ñëw def na fi 2 ans mais mën nañ jàpp ne am na benn changement bu am boo xamante ni si niveau nawetaan bi c'est extraordinaire donc di ko ñaanal yàlla di ko remercier li nga xamante ni moom lay yan bi nga xamante ni yan nañ ko mu yeggale ko ak jàmm ak sagom ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal ci Nouveau Guédois, ñu ñaan yalla aussi donc ñu jouer nawetaan bi aussi ci faire pour et que la meilleure équipe gagne